mbokk yi yéen a ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew noo ngi nii nag abonné leen bokk leen aimé leen partagé leen jaa ngeen jëf. avec Dieng Saala TV bu leen fàtte laal ko si loolu mooy tax vidéo bu dugal rek ngeen mën cee jot. rahmaani rahim. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ودوه إبا سيدا ندري مخافة لدى الله مكتوب دواما ولا خروا huduhu ibasayta ñu durri maxaafatan ladallaay makkutubun dawa man wala xarwa wujul hidaaturan ila xayri yansanat walam yanhuni maniya sidul harba wa lahwa wiqaayatu baaxin lam yasal xayra xaadisin xamat ni kamaata mi dasi xalbuhoo yahwa walu jiye fii sinil حفيظ الذي لها بلا سركة كل كفى من هوى سحوى وعيت منتوس لو خلب من خدا يروم الهدى بلا سمى العفو وسفوى وحيث لمنتوس لو خلب من خدا يروم الهدى بلا sama la afwa amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma wa wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim bokki talibe yi bokki julit yi bokki keur seigne ballu fali jeng euh ñi ngi leen di nuyu te di leen siar di jital ci nuyu bi kilifa keur Ya, muy cheikh mahamadul murtada di ko ñaanal mu yagg fi de wér di ko ñaanal mboolem ñim jaboté ba ci talibé yépp di sante bu baax ci bis bi nga xamné yalla yàlla la ko te sunu kilifa dañ ko taxaw ci taxaway bu rafet bo xamné dafa andon ak pëstef te yalla defalon ko ci khas yo xamné Eh, ay kilifaam yi mu fi fekkoon tan mag ko nangaloon nañ ko xaas ji ak i rakkam loola nag moo doxal bis bi ba tey waaw ah, bis bi nag xam naa duma mën a xam ban année dëgg dëgg la ko tàmbali ndax booba xam naa fekkul ñu judd moom waaw te it xam naa ni booba mag ñu ko fekke tamit damay ragal ne xam naa ni booba ati wolof yeeg yooyu ati tubaab yeeg yooyu pour ñu jàpp ko day xaw a jafe ndax boobu yooyu xewut waye ran mi ngi ko jëk a ci ginnaaw bi señ Balla li jëng wacce ab liggey mu dem ba samp kër te mi ngi ko tambalé won tamit ci liibarub pep ak liibarub café ak liibarub sucre wala kilo sucre ci lool la ko won. woon waaw njëlbeen gi nak bu ko masaari def day def lo way togg rek andi buñ ko toggé andi lo way bëgg sukk ci muy talibé yi nekk ci tundu wi ba ci dëkk bi mom nañ lako tambalé won jamono ju jëk ji nak daan na fanan, waye bam tambalé fanan yalla dogal jant bi so mu gis goor ak jigéen ñu tok ci lal bisub keroog mer la fanaane ci lako bayé dal li wax ni buñ agati àggatee san sax duuta fa ag bay fanan dal ni mën foluma foluuma ci la bayyi fanan ni kon pas-pas bobu la ci amone mu nekkoon bis boo xam ne nag da ci daan ñaanal suñ Balla Fally Dieng di ci ñaanal laale tamit euh, suñu bi Dieng Balla Fally ak mbooleem ñëpp rek ak njaboot gi taalibe yi mu nekkoon bis boo xam ne nag ñaan rek la ko tuddee woon jubluwu ci woon leen tamit lu may ñaan waaw ñaan rek la ci jublu woon te bu ko masaa fekke tamit lu mu am da ko ciy def ak taalibe yi nga xam dañu dañoo nekk ci tundu wi mo xam fuñu mëna nekk ci Touba ak ci yenen gox yi ba ci dëkk bi ñom ñëpp daan nañ togg ay bol di ko andi ñi ciébu ñebbe ñi ciébu jën ñi ciébu ndawal ñi ciébu kéccax kenn ku ne daal yaay togg la nga xam nga andi ko waye mom non la ko tambalé won ba yalla dogal mu aksi fi tay bis bi nak musu cee teg kenn wenn sas musu cee diis tamit ben dimbal kenn da cee masoon a rek ku ko fekk fekk ko ci mom naka jek non la ko don doxé buñ ci massa ag tamit euh, li ñu ci def euh, ñoron nako ci lool muy njàngum alquran mi mu daan ko sant bokki tayba yi ak daara yi deeru jëng yi yaakar yaakaar balla ak bokki tayba yi ak bokki mbakol yi waaw daan na leen fi wo ñu ñew jang fi alquran ba tisbar ba at mi mu mujjé defé daaw dana fi déggu leen noddu tisbar bu kenn bayyi daal ni njàng mi baar la war a nopp fu ngeen dégg noddu gi rek mën ngeen a bàyyi waaye fii déggaloo ak noddu bu leen bàyyi. dama koy tooñ ni ko maam dañoo sonn mu naan ma sonn ngeen waaye lu baax du doy muy daaw ba ci daaw jéeg rek loolu la mu mujj wax. buñ ko masaa def ba noppi tamit euh, mboolem xiiwal yi nga xam ne dafay ñëw da koy jagleel jànkati alquran yi rawatina li nga xam ne mooy ndabi teraanga yi fi taalib yi di indi da leen koy jox ba noppi Euh, boole leen ak ñu leen di attaayaal ba tamit lépp lu xeetoo ku naan wala tiraanga danaan yóbbul jox ñi jàngal Qur'an kon mom xamoon na bis bi fi mu ko toll. moom nag bu ko masaa def daan na ci ànd ak mboolem ñu mbokkal suñ Balla Fally muy Abdou Karim ba ci suñ Abdou Dieng Balla Fally mi nga xam fi ci seen kanam la ko daan defee ñoom it masaa ñëw am def ko ci. ba ci suñ talaa mi fi nekk moom it fonkoon na bis bi lool da daan teel ñëw moom daal ñëpp daan nañ ci ñëw ci ñëwin wu rafet woo xamante nii day ànd ak positif moom nag mu doonoon doomi suñ Balla joo xam ni suñ mu di jëng Balla Fally moo gën a siiw ci aw turam waaye nag suñ Balla tudd woon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha di premier xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu nekk koo xamante ni tamit. Ah, bi fi sëñ Balla jóge nag moom du woon mag ndax ah, ñu ngi ko joxoon sama maam ju ñuy wax Fa Binta Sall bi nga xamee ni sëñ Balla nelaw na Fa Binta Sall dafa jàpp ci loxoom ñëw jébbalaaj ku si yëbbi jóg bala bi mu ko ko jébbalee nag dañu ko dama cee bañ ay wax ndax ginnaaw doomi kilifa la te kilifa ma ko joxoon te wàcc na ab liggéey te yaa fi kilifa gi kon dama la koy jébbalaat digal loo ci joxe ñu jëfé ko bi loola amé nak soxna fa bint sall japp ci loxom ñew jébbalaaj ko suñu bijeeng bàll faali suñu soxna ba soxna fa bint sall xamal ko ni man kat fi ne jëm ak mak ta dama bari lu may fatte te ni bi ñaar lu ma fa denc koy fatali kon bobo kon mi ngi xawa deugër ci si bijeeng bijjëng faali niko bo démé demee na la ko suñ bàll joxe won non laa la ko joxe waat ñett dong la bëgg bu ko bu ko raflé muy xif bu mu bum mar ah, bum bum rafle la ca dess nak mom bayam dana ko ci def la ca dess bu ca waré ag bayam dana ko ci def soxna fa bind sal lola la nekké ak serigne bi ba xey noppalu ndax serigne bi xam ngeen ni soxna assu njaay mi ko jur dafa téla wacc ab liggéey waaw dafa téla wacc ab liggéey ñu jox ko soxna fa bint sal mu bokkon ci soxna yi serigne balla fa la dekkowon soxna fa bint sal mom nak moom moo ko yar yoroon ko daal li ñuy defal gone daal moo ko ko defal ba yàlla dogal mu mat a dem ci daara ji ci noonu la tàmbalee moom nag euh, daan na wax ne man suñ Balla daan naa ci fàttaliku nii waxtu wu ñu masaa xëy jox ñu ak nakka bu xëyee day dem jaareem moom nee na loolu daan na ko fàttaliku ci suñ bàlla moom waxtu wu masaa xëy ba jox nu nakka daal dana dem njaareem bu xëyee wala du ci amaat ñaari fan dem njaareem kon moom loolu daan na ko ci fàttaliku lu bare bare mu nekkoon koo xamante ne tamit nit la woon ku dëddu àdduna nit la woon ku bëgg lu baax nit la woon ku joxasoo mboolem ñi mbokkal suñ bàyyi fa li ñëpp rawatina yi murit yi nga xam ne dañoo nekkandoo woon ca daara ja ñooñu amu ci woon kenn xaar ma yàlla ñoom ñëpp la jaxasool ba ñu ci bare bari sax tudde nañ ko ay ay doom waaw moo tax nag eh, mu nekkoon koo xam ne daal dundam gépp ci lu baax la ko nekkee dont xam naa ne wax ji dana xaw a dis ndox dañoo bett waaye mu nekkoon koo xamante ni tamit bu matee dal jàng suy bi jëng bàyyi li yóbbu na ko fa mu war a jànge mu jànge fa bi matee tërbiya yar ko lépp moo ko ko defal yóbbu ko ca daaray jéere ji fa la doon tërbiya woo ba mata samp kër mu sampal ko kër moog sëñ fàllu jëng mi nga ne seenu magante bari wul ay ay morom lan woon ci saayir ñoo sampandoo kër waaye nag lépp sëñ Abdou Dieng Balla Fally moo ko defal waaye nag teewul mu nekkoon ku sëñ Abdou Dieng Balla Fally bàyyi xel lool ci baatin ndax baraana loo xam bu bu ci dogu day wax bu ko ci kon daan na ko lo xel daan na ko moytuloo magi taalibe xam na ci loo xam ne nag xam naa du neex a wax ndax day baatine ba mu ëpp waaye daal bis la bii bis la boo xam ne bis bu yaakaaru la ci lépp ndax suñ Balla Fally Dieng mi ngi koy defal dafa tërbiwu suñ Tuubaa ba mu gërëm ko moom it mu ñëwee ba mu ñëwee moom suñ muudu mii di xeeñtu di xeeñtu tànk yooya ba nim ko ba nim wuy jë boroomam waaye moom danga jëkk daal bis bi fonkoon na ko lool te lum lum ko massa fekkal tamit da ko ciy def bu jëkk sax ay wax bari won na ci lol ci bim koy doora tambali waye teewul bobu moom mu ci pas-pasam rek xam li ko tax waye boba wax ji bari won na ci lol waye teewul mom mu xam li ko taxoon a ba suñ borom dogal mu noppulu ci weer yi di juroom ñaari fan ci wéru tam xarit kon kon dama len ko jëk a rek ci loolu nekkoon manam jang alquran ak qasida berndel talibé yi ba tisbar buñ jëlé tokkosaan mu yewi mbolo mi rub lim koy def lepp musu cee weesule loolu day am lo xamni ni betti gi ak buñ ñu waree waxaat leneen rek inshallah rabbi أعوذ billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين وعلى خير خديمه شيخ أحمد بامبا وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي Darou Dieng seen mbokkum bi eh, di ndongo su xeebu suñuy wax Abibu sàll mooy nuyoo nuyoo ba gën a tedd gën a teey di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di njëkkee ci nuyoo boobu Serigne Mourtala Dieng khalifa ab seigne Balla Fally jeng di ñaan yalla subhanahu wa taala mu guddal aw fanam wéral aw yaramam katnal ko ba li nga xamne ne na ko liggéeyal Serigne Touba ci kippaar ak wi borom ko ko bam def ko nako njortam tànd koog mboolem talib yépp daraja yi mambarun Touba xam ngeen ne tey ñoo ngi fii ci Daaru jeng ci bis bu mag di bésub Serigne Balla jeng Dieng ah, di bis boo xam ne mën nañ ne bésub tiis la ci zahir waaye bésub mbégte la ci baatin ndax nit ki ada adama ñaari bis rek laam te wala boog ñett bis rek laam alquran tudd na ñett bis yooyu muy wasalaamu alayya yawma walittu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya ko ñetti bis yoy rek la nit ki am moy bis bi mu gane aduna ak bis mu wacc ab liggey ak ak liggey ma xam bis bi am ci rek suñu bam di dekkal tabaraku taala ko ñetti bis ñetti bis yu mag la ci dum adama ñetti bis la yu for yo xamne euh, bis ñu wara fonku la euh, bis bu ñëkk bi man nañ mo waral gamu mo sabab ñuy gamu gàmm ku ne xam na ne mooy bis bi nga xamante ne ci la Seydina Muhammad gën a adduna euh, sallallahu alayhi wa sallam euh, bis biit na nga xam ne ci nekk tey mooy bis bi ci la euh, ku baax ki di sëriñ Bala Fara Dieng wujji woon yàlla ngir tase ji ak borom tabaaraka taala di bis boo xam ne Sëriñ Tuubaa daana ñaan yàlla maa ngi ñaan bis boobu bokk ci bis yi ma gënal ndax boo demee ci sindi dafay wax ni tabit yaqiniya fi khalbi bila wajlin hatta xatta uhibba alhaq ya allah kon mi ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka taala ne ko yalla nga ma saxal ak dëgër ak ak wolu ci dul ben jakare ba ma sa bis maam ci ci ak yow yow yalla mi aji deggu ji yow mi aji wor ji kon bis la boo xam ne mboolem gaa yi baax amko. ñu ñaan ñaan am ko te moy bis bi nga am ci lañuy ci euh, lañuy jël seen ngañaay wala ci lañu noti lañ noton mooy li nekkon ci aduna lepp xam nga ay tol la bala nga fayu nak faaw da nga dem ca ah, borom tol mu la fay. motax bis la boo xam ne ah, nañ ne ci waaye dafa metti lol waaye bis la bu baakha baakha baakha baax ci batin bis la bu neex a neex neex neex ah, ndax ñi mi naqari ci ñom rek mooy ñi xam aduna àdduna daf leen a war moom àdduna waru ko moom ko dara ndax liko waron lepp def nako ba mat sëkk monsieur bi ko fi andi won muy jam borom borom tabaraku taala ak liggéey seigne touba man nañ ne dara manko ci lepp matal nako ndax mom mi gën aduna atum 1856 ah, ci la gën aduna fi ci Njompi jege ñu lool fi la gën aduna ba ma dal jangi nak jang na fa wara jangé muy tay ba ah, fa la jangé ah, wax deug yalla ba nek am kang ba pare nek fouré lañ ba xam lepp tuwal di mu xam ko bu nëppee mu des si njompi di liggéeyal waajuram nekk ci ay ndigalam ba léegi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa fële ci Daaru Salaam ci atum dasasin atum 1304 mu dem fa gàddaay wàcc a njabootam wàcc ay doomam wàcc ay toolam wàcc léppam mën nañ ne wàcc adduna wàcc adduna ci gàttal rek waaw dem dar Salaam jébbalu ji ngir wut ngir wut ridwanul akbar mu ngërëmal yàlla li gën a màgg moom la ñu wut fële Daaru Salaam ba mu àggee wax dëgg yàlla def na fa lu ko ko may def na ko ko may ndax lépp lu mu xam ci lu baax musu koo dañ di ko def muy guddi muy bëccëg musu nopp di kër kër yi ci lu baax bi boroom xëy gërëm ko jaale ko ci Seydina Mohamed ah, mu di ko ci sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa mi nga xamante ni ah, moom la doon liggéeyal sëñ Tuubaa xamal ko ne ko kat ah, bale faali mën ngaa dellu ndogal gërëm naa la Muhammadu Rasulullah gërëm na la sa boroom gërëm na la loolu moo waram mu del si ndogal bi mu dikkee nak amna fi ay jafe-jafe yu metté metti yo xamné ne mak bokk yi la won ak dëkkandoo yi daanaka jërëm ñu sey jaar waaye kenn ku ne xamna ko ba tax mu gàddaayee dëkkam mbobu sanc daaru jëng gii waaw sanc daaru jëng gii moo mu gàddaayee kërëm mu gàddaayee ñom bi sanc kërëm di sekar mu tuddé ko dëru mu tuddé ko romb nak bu ko faalé kon loolu lu amona am la waaye teewul nak mu nek ci la war nek digënté ak bokk yi di défar ah kéemtulaay kàttanam ci àllu quwaa al islaamiya mu ci mën mu di ko def di dox ak mbokk ah, dem ci ngénte yi waaye di dem ci ah, dëj yi di jaale di jokk bokk kéemtulaay kàttanam daal lépp lu baax rek mu koy def di dimbali nit ñi ah, di bay ay tool di gas ay teen di dimbali jaam ñi nga xam ne moom la ko yàlla booleel ba dëkk bépp réew mépp maase jox ko bopp kenn ku ci nekk dëkk di jéblu ci moom ba tax daanaka ndogal mën nañ ne ah li ko si Moussa ko waxee ndogal ne dog ndogal ne dogal ba dog na fa Balla Faali kon loolu lu am am la mën na ca loola di liggéeyal boroomam di liggéey Sëñ Tuubaa ah mus ta deñ mus ta dàcc benn yoon bi sëñ bi dikkee njaareem ceetum la sa sin la ko Sëñ Tuubaa wala mu dikk njaareem nekk foofa fa moom di liggéey mus ta deñ ci loolu mus ta deñ ci loolu ba wujj jàll atum 1940 nga xamante ne ki njëkkan ci moom ki ko woolo woon muy sëñ Mouhamadou Hajara Mbacke ah, bi ko suñ tubaa gërëmee suñ tubaa moom la yónni woon ne ko dama la woon ma suñ bàll dama la woon ma bàll faali suñ Mouhamadou Hajara moom moo nag bokk na ñi ñu mujj waxtaanal bi mu wàcc ab liggéey kon mën nañ ne moo njëkk ci moom waaye mën nañ ne moo mujj ci moom ndax moo ko seeree woon moo ko woose woon bi ko suñ tubaa di gërëm suñ Mouhamadou Hajara moo ko woose woon ca tool ya waaye bi mu ñibbi nag di wàcc ab liggéey bokk na ci ñu mujj waxtaanal mosu mu hajjira Mbàkke moom noonu kon mi ngi wàcc ab liggéey ah, ci tamxarit ñaar fukki fan bi mu daan wàcc nag lu ko waral lépp def na ko ndax mën nañ ne tëddul ci ab tawat julli na guddi daal nit ñi di ko dégg ba noppi ko dégg bi ñu xëyee lañ gis ne wàcc na ab liggéey amul kenn ku ko defal dara li ko war mu war a def ci màggal gi lépp def na ko ndax booba mën nañ ne daan rawlu ay goj Uh, adduud ay bak. ngiddi koy simul Mustafa ngi mën ko waajal magal gi lepp sun bala fagon nako ko door kon bi mu wàcc ab liggéey nag mën nañ ne Serigne Mahamadou Lamine Diop Dagana mom moko yobbu Touba ak wa Daare Kamil ñom ñepp and dik jëbbal ko al Karim uh, Mom, mo santaane ñu jullee ko dal koy denc feemu nek kon bis bobu man nañ ne bis debu tiis ci ci ci ci ci ci sawahir way la bu neex ndax bisu mbégte la bisu mbégte la ndax bisu ñaari soppe dajee moom yaakaar naa bisu la kon mo waral bis bi ah, ki koy magaret di si Mouhamadou Dieng Balla Fall di si soissar way wax yaakaar naa doy na sëkk ah, ba mu amee ba léegi ñun magal judd doomu fekkoo ñu koy ñu koy magal kon xam ben bis la ko magal way daal ni koy dara soppi ko ci noonu ñu koy ñun ñi non rek lako daan te mo jang karim ah, jang khasida bu takkusaan jotee mu yeewi jaam ñi mus cee rax dara du nuru àdduna waaye nuru am am po loola nag bu bis bi ayee ba léegi ci loolu rek ci la nekk kon nag euh, ginaa suñu balla moom mi nga xamante ni mooy boroom yëf yi ba mu daataan wàcc ab liggéey waajtee màggalam lépp def na ko kon nag loolu ab junj la ab junj la ci fonk gum fonkoon màggal loolu nag tax na ñun taalibe yi kenn ku nekk ci noonu war ngaa góor gu baax fonk fonk la ko màggal googu ndax ndigal loolu lu bàyyeekoo ci Sëñ Tuubaa jaar ci ay loxoom. te loolu wax dëgg yàlla mën nañ ne mboolem seex sépp ku ci nekk am nga feex waaye loolu ngañaay moom moom dong moo ko am wax dëgg yàlla moom dong moo ko am te nag loolu war nañ ko ko fonkale bu baax képp koo xam ne da ngay wuyoo jëng ko nooyee ni moom nga yaakaar te muy dëgg ci yow war nga fexe ba màggal gi nga góorgóorlu baaba xas sa tànk tubéy lépp loo ci man nga def ko da ci tuuti nag jàpp na jox ab gàtt moo ci gën a kon nag loola na ko ñëpp def man maa ngi fàttaliku si mur jëng mii màggal gi am na bis ma dikk andil ko aw bay mu sa gatt magal wal di ma ko du suma gatt magal dama la ko jox ci bis bi ci la ko def mu ma bo agge na nga waaj sa gàttu màggal ni ma di baax na lol da nga waaye da nga waaj sa gàttu kon bis bi ñor nako lol waye nak magal mom da daana ko fàtte fu mu kon nak loolu taxna ah, man su jimi bop en tant que ab ci kër gi ma nga soñu kep ko am yaa ngi seetaan jeng ah, Saala TV da nga yag Sëñ bele far jeng da nga ne moy sa sëriñ ngir yalla fexel ba sa gatt magal nga nga nga nga nga lijeentiko ndax kenn ku ci nek ni nga fonké sam tuddu fonké na sa ciet lu ne nga atane ko caa def wax deug yalla loola lamay sun ñor ñor ñor ñor li mooy fa farata li sun farata te bes gi yakana am nañu ay xari lu leen lañu jënd wax deug yalla xari cher nyor ñuy jënd te bes tabaski ñor na lool sunna lay it su feddliku waana ñun li mom man dama ñun sunu farata la ñun sunu farata la kon nak lepp lu ci way man na ko def ngir jëmmi sëñ Tuubaa ak jëmmi sëñ Balla Fally Dieng te xam na kat borom moom lam ca waxoon wóor na ki koy def ak ki du ñëbb mukk saa bu nekk koy def day gis damay tane ka ko di def kon nag ku ne sëñ Balla Fally daal nga yaakaar wax dëgg yàlla man ko màggal gi jàllal joxe woo joxe sa gàttu màggal maa jàpp ne yow ngëm-ngëm des na man loolu loo foofu laa toll man te jàpp naa ñëpp lañ nekk waaw kon nag kenn ku ne ci noonu daal boo ko sa man may mayee na nga jox sa loolu nag jàpp ne moo gën tuuri ci màggal moo gën a tuuri ci ci kon nag xam naa ne maa ngi wàcce foofu kàddu gi bu ko defee jox sanga su baax si nga xamante ni ñoo feggu ak man ñu ñu sànni ci seen i kàddu jërë ngeen jëf a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin al wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk yi ñoo ngi leen di mbokk yi top Dieng sala TV ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi ak ziar bi ki nek ci njabot bop njabootuk seigne Balla fali jeng muy Cheikh mohammed murtada jeng, ibnu Cheikh Balla fali jeng di ñaanal yalla mu dolli ko aw fanam dolli ko gur, ta lim yene liggéeyal ko bayam bu tedd ba liggéeyal ko Cheikhul Khadim suñu borom kàttanal ko mu liggéey ko tam and ko talibey taalibe Niko mbok yi tedd yi jitu waxe legi serigne mohammed Moustapha sar Cheikh habibullah Sall danaka li mata wax lepp wax nañ ko dañuy feddeli rek ci seeni kaddu ak tombe yi nga xamne ne wax nañ ko ñongi ci tay yi ni ci dekk bo xamne ni kiko sañ ci yalla da ko gërëm yonent bi gërëm ko serigne touba ko muy dekk serigne Balla Fall yi ngi ci euh ba ñew ci ki nga xamne ne mo wote bis bi ak ci magal gi am ay tomb rek yo xamne ne dañ koy fatali ci jëm ju tedd jooju muy Serigne Balla fali jeng serigne Balla euh, fan yee dama don waxtaan ak genn kilifa gu mag ci yoonu mourid mu ne ma daa mel ne yi ëpp tawfiix ci yoonu mourid ñu la ñett yi ëpp tawfiix ci sëñ Tuubaa de serigne Balla mo ci gëna fess ñetti mbir yi nga xamne moy li gëna fess ci yoon yi sëñ Balla mo ci gëna a ràññeeku ma ko bo sax bimu waxé rek sama xel dem na ci ñett yépp waye dama bëggoon waxal bopam man na ko tuddu sax sëñ Ibra Sama tum sëñ Sohaybu mu ne ma da melni ne Balla dal dama tok di xalaat di xalaat bu yag waye da melni yi gëna fess ci yoon dal suñu borom da ko ci taw fexal feexal booba ma xamna fi mu jëm waye ma bëgg mu waxal ko bopam mu ne ba ci ñëk moy magal gi loolu kenn wérantewu ko sëñ Tuubaa bi muy dem métti yi yëpp wowut kenn moom moo ko taggoo moo ko moo ko moo ko moo ko toggoo waxut kenn kaay muñ le ma kaay leen jàppale maanaam sabru bi mooy lekko naar boo xoon rek wa sabru ko faaxa sabra naas xataa samawta ilaa alal maqaamaati li tax nga féeti ñëpp kaw danga ngaa féeti ñëpp ak muñ sa muñ daa féeti kaw ñëpp looloo tax nga féeti kaw ñëpp wa sabru ko faaxa sabra naas amul kenn ko tolol ak muñ lolo tax nga mujj nak hatta samawta a'la alal maqamat lolo tax nga jek jek nek ci njobaxtal la tim ñep loolu li la ko may moy sa muñ muñ googu nak bimu mu ci nekkee moom seexul xadim woowu ci kenn da koo toggoo juróom-ñaari at yep da koo toggoo iqaama jabriya gi nek njaaram yep muñ gi da koo toggoo ndax boba xam ngeen ne li li li neex ci ñun ci banexu aduna moy liberté buñ la ko rek xagn nañ la lepp ci sax xañuñu ko liberté ak digganteem ak boromam ndax lim war digënté mak boromam yépp mi ngi koy def ci waxinu zahir rek muñ gogo bi ko toggo bi ñëwé ci cant gi nak waxu ne ma ngi sant ñun ñi ku ci demone di liggéey gennon dem liggéey wala nga don bay bam jot boy jot sa capital wala boy jot sa xaalis do wo kenn ne ko kay leen ñu ñu ma retirer retiré sec bi kay ñu and ma retirer sec bi do ko wax. mom nak da jël muñ nga yépp toggo ko waye bi mi sant dafa wo ñëpp na ñëw leen sant lema yalla lol nang modi ngor deug nag kooku mom kenn munta kenn munta wax dimension bobu fu toll. awliya yëpp nit yalla yëpp ko ci xor rek bis bañ koy fatlik moy bis bi natt yi ñew ñom lol lañ don lol ci lañu fatlik mom nak bis gi cant gi bis bi xewal yi ñew ci la wote sant yalla ci moy ñaar fuk fan ak fukki fan ak ci yoru safar bis non nak lolou mom euh dafa nek lu officiel lo xamne bi ko sëriñ bi santaane sëñ Balla Faye la ko jox dañ ne ndigal bépp jëf booy jëf ci jaamu yàlla yépp rek boo xam ne dafa da nga ci am al isnul xaas moo ëpp tiyaaba jëf joo xam ne amoo ci ndigal ndigal dafa barkeel borom xam-xam nañ naan lu tegu ci ndigal lu jugee fa mu war a jugee du lore mukk lu tegu ci ndigal lu jugee fa war a jugee du lor jaam mukk te koy def moo ëpp la tiyaaba mukk ka nga xam ne da koy def ci tegu ko ci ndigal mu ngi mel ne sëñ Abdou Karim mi demoon ci pharmacie bi di jënd ay doom ay garab am na xeeti doom yoo xam ne nii pharmacie bi nga xam dafa tegu ci yoon du ko ko jaay mukk fekk indiwut ordonnance bu jóge ci médecin bu spécialiste wu ci garab gi muy jënd waaye am na doom yoo xam ne nag moom nga indi ordonnance ak ko boo ñëwee jaay la ko boo bëggee paracetamol kenn du la laaju doom yoo xam ne am na doom yoo xam ne nag médecin bu spécialiste wu li ngay laaj moo la koy mën a jox loolu la ñu tudde al isnul xaas ci tasawuf mooy ndigal loo xam ne nii dafa jugee ca fam war a bàyyi ko Seexul Xadim kenn wërante moom mooy di maanaam moom mooy kii joxe ndigal sëñ Saam dana wax ne ëllëg fële ca fële ca fële ca alamul malakut kenn amul sañ-sañu raf ci lu dul ndigalam moom loolu la wax kon kooku <laughs> fii ci suuf kenn waxaale ko ndigal loolu nag sëñ Balla la ko njëkk a jox sant ko ko loolu moom mooy taw feex bi amul dara lu gën a rëy ci ñun màggal amul dara lu gën a rëy ci ñun màggal daana wax naan du ma ne moo gën tabaski de waaye jàpp naa ne moo gën ci yéen tabaski sëñ mag bi daana ko wax. loolu nag waxin wu xóot la woo xam ne nii wax ju fees dell ak charia la ju fees dell ak xaqiq waxuma ne moo ko gën waaye yéen ñii nga xam ne maay seen njaboot de moo gën ci yéen loolu moom kenn mënu koo contesté ci wàllu diine ci charia ci xaqiq xam naa loolu du débat waaye ndigal loolu daal muy digalu màggal gi moom moo am tawféexug mu bàyyi koo ci làmmiñu Cheikhul Xadim wu tedd wa ñëw ci ay noppam moom Sëñ Balla Fally Dieng mu jëfe ko jëfin wu rafet nag woo xam ne ñëpp ko ko nangul rawatina njabootu sëñ njabootu sëñ Tuubaa loolu tawféex googu moom la ko yàlla njëkk moom la ko yàlla tawféexal ca nangul ko ko mooy bu njëkk bi. tawféexu ñaareel gi sëñ Tuubaa lim gënoon a bëgg ci kaw soofu mooy Tuubaa yàlla bi mu koy natt ci Tuubaa la ko natt. bi muy jógee Daaru Salaam di jëm jëm Jolof sunu borom dafa xam bëgg gum bëgg Tuubaa moom mu xam ne moom mu xam ne suñu borom xam na ne daa bëgg Touba waaye ca jom ja dana du xool Touba waxuma di fi jaar dane moom Touba gii du ci teg bëtam dafa bëggoon Touba lool xasida yi boo xoolee wala xadd karam na bi natt yi bëgg a jeex yëpp rud nii ilaa Touba rek ngay dégg ilaa Touba ilaa Touba ngay dégg yëpp Touba li abdin muridin coofeel gu mu amoon ci dëkk bi ndax dëkk bi ci la gisee rasulullahi jëxëran ci daara xudóos mu jox ko ndigalul imsi laa tax sa darar ak yeneen yeneen yu baati ne yoo xam ne ci dëkk bi la amee bii di Touba ki fi njëkk a xidmaal seexul xadim ca maanaam ëllëer ba mu génne woon di ko di ko bay ca taatu garab ga ka ko njëkk def nga xam ne sëñ bi daa daa maanaam moom dafa nekk taalibi boo xam ne nii ndigal du ko bett soldat dëgg dëgg dëgg dëgg wala nitug nitug maanaam nitug nitug armée dëgg dëgg dëgg dëgg dara du la bett ñoom bu ñuy tëdd dañuy tëddaale seen i dàll looloo tax charia leen sañ ngeen a julliwaale seen i mom nak dafa mel lool baga la xam ba nga xam ne luy ndigal duko bet ba señ ba soxla lu jëm ci walu setal barab bi ñu nek ca euh, gafaka gam gam gam gatcho won ci la genné gop ba daal dem ca garab ga dag fa manam bant bi ñi def ci ci ci ci ci ëleur bi daal di bay barab bobu non kon Touba gi xidma ci Touba nak bari na daayira yi xidma bari na muqaddamatul khidma rawd rayahin de nga euh, Touba ca kanam jëm ji ñëk xidmal cheikhul khadim ci dëkkam biir Touba moy señ Balla fali yeen muy bara bay ca béb ga yaakaar naa garabu béb la suma ma ka njëkk a bay ca barabu béb ga mooy sëñ Balla fa Dieng moo njëkk bay ca béb ga ca baytu na waaw yaakaar naa loolu sëñ Moussa Ka ko wax te sëñ Moussa mooy al mu arrixul kabir ci tubaa xañ na ñun ñii bu ñu waxee ci ndax sëñ Balla nee na man am may taalibe mbokk la am bu ñu waxee dañ naan di bëtuñu ci moom seere ndax cofeel ga waaye lii seere la ci muy ñaareelu tawfeex gi moom moom la ko sëñ Touba njëkk tawfeex euh, gën euh, njëkk a jox tawfeex googu mooy mu xidmaal sëñ Touba fii ci Touba ñetteelu tawfeex bi sëñ Touba nee na dana fi jóge waaye dafa bokk ci moyens yi mu ñu fi bàyyil loolu la raw ñëpp nag mooy dafay bàyyi loo xam ne ba léegi dafa saf sàpp nag di defar bu fi jëmmi ji jógee dafa mel ne loolu ba tey dafay desaat mooy xasida yi ki njëkk am tawfeexu xasida goo xam ne sëñ Touba da koo jox xasida gi jox ko ci isnul xaas wax ko ci wax ju yi muy jaalibatul maraaxib mooy sëñ Balla Fally Dieng te boo doon tudd xasiida yi boo doon wax benn wala ñaar wala ñett faaw da nga ko ci boole ngir lim lamboo ci ay mbirum zahir ak lim lamboo ci mbirum baatin ak lim lammoo ci maanaam la ca ne ci balaaxaak aruud lu luxa arab yaak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn xamu ko diggante ak boromam la te it moom la wax ci xasida goo xam ne xasida yi ci des yam ci wax rëy lool waaye moom it lii lim ci wax moom ñaanalul sax ku jàng xasida gi wala ko ko mokkal ko ko am ci anam bu ko amee yow yàlla yàlla nga faj ay aajoom loolu sëñ Balla moo ci am moom am na ci tawféex bu baax a baax tawféexu xaas goo xam ne sëñ bi da ko waxoon ne ko ku ma fi yebalate ko dee ko da nga ko jox xasida gi yàlla batum raxib ba mu yónnee maami sëñ euh, maami sëñ sëñ sëñ Fallou mii sëñ Fallou Dieng mii toog mo euh, moom sëñ Ibra Ñande sëñ fallu Dieng mii toog di doomi sëñ sëñ sëñ sëñ Mut Jobbi Dieng ba mu ko yónnee ca gànnaar sëñ Balla Fally Dieng moom mi ngi nii sax seera si mi ngi fi ba mu ko yónnee ca gànnaar xasir ak jaalibatu maraaxib ga mu ko joxoon ne ko armeel yoo romb jéggal nañ ñañ fay ñañ fay mbugal ba ba at ma del siwaat xasida googu sëñ Balla Fally Dieng la ko joxoon tawfeex jooju moo ko am mooy ñetteelu tawfeex gi nga xam ne moo ko léegi nag lii boo ko tuddee looy tuddaat nag li tax mooy moom nag musu koo tudd musu koo ndamoo ak njabootu mosuñu ko tudd mosuñu koo ndaba ñun ñii di nab nabi ci wàllu xam-xam ñoo dem ba seetlu yu mel noonu di ko tudd waaye moom tudd loolu dafay nekk nëbb ko ba jóge fi ndax borom baatin dëgg dëgg dëgg wala ku diis dëgg dëgg dëgg du wax te ñoom xam guñ xam àdduna moo tax ñu doyadil ko doyadil goo xam ne soxluwuñ fi fayuk àdduna ca loolu dafa feeñ ci mbiram ci zahir loolu mooy ñetti tawfiix yi nga xam ne ku aju ci moom war nga ko bàyyi xel loolu mooy li nga xam ne mooy fàttali gi ñu bëggoon def sëñ Balla Fally Dieng li ci amaat solo sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa wax na ko suñ taw it tawféexal ko mu bàyyi fi ay xulafaa yoo xam ne ndeysaan euh, li ñuy soxla ci li ñuy soxla ci njaboot gu baax zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu liñ ciy soxla dëgg dëgg dëgg dëgg mboolem ñi fi jaaroon yëpp liñ doon ñaan yàlla mooy yàlla ma may njaboot gu baax yonent bi sallallahu ne dañ koy ñaanal bis ne la ko dafa am benn suufi bu mag bu jékki-jékki taxaw al mawtu ni'matun daan ne dee day xéewal la ne da la da wax a déedéet al mawtu ni'matun Cheikh Ramadan Bouti moo ko doon wax naan nii xanaa da naag boobu bi bi muy bëgg a génn la ko doon wax naan dee daal ak ay xéewal ay ay waay dee waay dee dee la ñu ne ko lu tax nga di ko wax mu ne mboolem li yàlla sa dige ëllëg ci xeeti xéewal bala nga koo am da jaar ci dee kon dee xéewal la te yàlla nee na jaam bi njort lim am ci man rek moom lay fekk fii bu ñëwee ci man nee na man dama am njort lu rafet ne saa borom damay dugal àjjana ca damay jéggal amma njort lu rafet sama jëf waye dama am njort lu rafet ci sama borom ci njëggalam gër ma moo motax mané ne almawtu ni'matun bis bi nga xamné ci la bayiko nak ci lay xam bu baaxa baaxa baaxa baax a ne liggéeyal ku mata liggéeyal ku mata gërëm gërëm nako ci ni ko sëñ Abibu nettalee légui ci ngërëm la ci duma ci jaarat khulafa yi fi bayyi ba ci jitu moy sëñ Abdou djeng Balla fali nga xamné ne euh, mom, batin bi nga xamné da newon ci seigne Balla newon ci sëñ abdourahman Lo man nañ ne lepp dafa feeñaat ci moom ñu bari sax naka wa Touba sëñ Abdou Dieng la ñuy wax bu ñëwee seigne Abdou mënu mënuñoo takal sax digënd seigne Abdou Dieng ak sëñ Balla Faali leg leg da ngay waxtaan sëñ Abdou Dieng ñu japp ne seigne Balla Faali ngay wax leg leg sax ñu juum génne photo sëñ Abdou Dieng bind ci sëñ Balla Faali Dieng dafa injas lu bare bare bare bari tajdid lu bare bare bare bari bañ far di jaawale ak wajuru mu teddo lolu ci ab liggéeyam la sëñ ndaam it Abdourahmane loo gërëm ko gërëm goo xam ne nii foo dem ci ndaam ba tudd tudd sëñ Balla Fall sëñ Abdou Dieng Balla sëñ Balla Fall Dieng wala sëñ Abdou Dieng mi fi nekkoon dañ lay bàyyiwaat xel xam ne kii mooy kiñ gënoon a xam fii ci ëtt bii di ndaam ki sëñ gënoon a gërëm wax nañ ne dégg naa ko man ak sëñ Abibou Sall mii ñoo ko dégg sëñ Abdourahmane um sëñ Moustapha Lo mu sëñ ndaam Abdourahmane Lo mu ne sëñ ndaam bi mu fii bëgg a wàcc liggéey njaboot gi aju woon ci ñoom kenn ku ci nekk daa am kër gum la yebal waaye sëñ Abdou Dieng dana ko yow ku fi toogal sëñ rek moo la attan mooy sab mom loolu la ko wax dana koy Abdou Abdou nak abdou rahman mi nak ndigal lima ko jox moy nay jaayante ku fi nekkal seigne touba wa nay jaayante ku fi nekkal seigne touba lolou mom danaka duma ci commentaire damay bayyi nit ñi kenn ku ne nang ko déggee baxna ki nak mom nay jaayante ku fi nekkal seigne touba wa seigne Abdou Dieng mom nak lu bare bare bare bare ci sa di ci digeunte seigne Mourou Moustapha tambale ko seigne Mourou Moustapha 1940 di fi seigne Balla Fall yi boromam bu tedd ba dem fekk Cheikhul Khadim ba 1986 wala 87. 45. 45. 45 maanaam sëñ bi jëng 89 wala 88. 88 diggante boobu li mu injaas ci wàllu xidma kenn mënu koo lim ci jataay ci gàttal rek dama naan la fu doomu Serigne Touba waxuma la ku euh, ku toogal xalifa Serigne Touba de doomu Serigne Touba bu fi nekk rek sëñ bi jëng sa biir kër defal na la fa xidma ju fa nekk nag ba tey jii di seere nekkaat fi moo xam kër la gum defar foofa bàyyi ko fa kër gum fa samp. wala say tool yum la defal wala addiyey xar yum la andil wala aw ñam mum la andil wala jumtukaay yi mbay wala jumtukaay yi yii muy romb jaan yi nga xam ne foofu rek lañ ko xamoon yu mel noonu yoo xam ne ni sa waajur ràññeekoon na ci loolu yow borom euh, borom Dieng Saala TV yooyu yëpp ci fii lañ ko xamee woon ci ndogal mooy yu cosaane yooyu muy néeg yi néeg yi néeg yi néeg yi ñuy wax néegu néeg yi nga xam ne moo fees dellu ci kër gi ñu koy wax néegi kaas euh, ak romb jaan ak ak ak gocc yi ñu ñu ñuy nga xam ne Touba dafa amoon problème ndox jamono jooju moom bokkoon na ci ñoom li doon waajale màggal te li ci gën a yéeme mooy dañuy joxe ba noppi nag ak li ñuy fonk màggal yëpp toog di xaar yàlla lu mu andi nag ñun ñu def ko ci bis bi mooy bis bi nga xam ne ci lañu yóbbu lii ci njabootu sëñ Touba gi ñoom ñu waajale ko bis bi buñ noppee ci la ñu yóbbu ba noppi ñu soog a xool nag ñun lan la def ci màggal gi loolu sëñ Abdou Dieng Balla Fally moom moo ko jàng sëñ Balla Fally Dieng moo ko jàngalit rakkam yu baax yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ba ni mu wuyjee boromam sëñ Abdou Karim Dieng mi nga xam ne moom màggal la moom mooy màggal laqabu màggal ci boppam mooy sëñ Abdou Karim moom mooy màggal na mooy addi màggal moom moom daanaka léppam màggal la li ne ci moom màggal la mi nga xam ne kenn la ci njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne moom it ku feesoon del la kuñ bàyyi woon xel la doy na sëkk rek mooy mas nay siyaare ji barabu sëñ Tuubaa bi suñu am satu ne Abdoulahi Méré bu dara nekkee ci moom dara xamne tay bayam neeku fi neena na sëñ dafa firndeel lolou bam genn génn da da duggul barab ba wala bam mu da wax lu mel non wa duggul ci barab ba lolou day waree baatin bi ne ci mom seigne Abdoulahi momu seigne Abdou Karim seigne Abdou jeng bi mu bi wala seigne Balla fali bi mu séddalee xar yi ci njabootu sëñ Tuubaa yépp mu mel lu xawa faté ci zahir kër seigne Abdoulahi bam ñëwé di jambat dafa yëkëti seigne Abdou Karim jox ko kon seigne Abdou Karim addi magal la kooku moom kuy wax ci màggal moom mooy màggal ci kaw suufar ca loolu nag ba tey jii nii ñun ñi wane ne dañoo fonk màggal ba tey déggaguñ ko ñu ngi dégg junni nag ñu ngi dégg nangami junni nag waaye ba tey gisaguñ ko joxe bakkan ci bisu sëñ Tuubaa loolu sëñ Balla Faali lañ ko gis sëñ Abdou Karim it loolu lañ ko gisoon mooy na Ismaayila joxe woon na Ibrahima joxe woon doomam jooju Ismaayila joxe ko addiya ba tey ñuy tabaski noonu la sëñ bal joxe sëñ Abdou Karim bakkan ba tey ñuy màggal bi mu ñëwee moom it yàqu dara ca loolu taxawaay boobu da koo taxaw taxawaay ba gën a rafet ci ñim bokkal jamono ci sëñ moom waxuma la sax ku fi nekkal sëñ Tuubaa waaye loo taq ci sëñ Tuubaa ak zaahir ji lu mu suufee suufee suufee suufee da lay màggal waaw tab lool nag tabam googu li ko waral mooy dañ koo joxe woon addi dañ ko joxe woon addiye addiye yooyu ñu ko joxe nag moo feeñaat ci jëmmam jooju ba nga xam ne du dinañ ci dara ca borom xam-xam yi nee na wal juudu bi nafsi ax saa xaayatul juud tabe ba tabe sa bopp nag mooy tabe gi gën a kawe ci xeetu tabe tabe sa jëm moom it noonu la fi nekkee di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba ni wuy jee boroomam laq ngërëmal képp ku mu fi fekkal jamono rek ci njabootu Sëñ Tuubaa laq ngërëmal Cheikh Abdoul Ahad mi bokkal mi mu dajeel ci xilaafa gi Cheikh Abdoul Khadir mi mu nga laq ngërëmal Serigne Salihu daanaka nga xam ne li ëpp ci xilaafa moom la dajeel. ca li ëpp ci njaboot gi it mën naa ne ca daara yi gën a ràññeeku ca xelkom njabootu sëñ Balla Faali lañ ca loolu liggéey sëñ Abdou Karim la doy liggéey ba mu liggéey ci kër sëñ Saaliw a ñeneen ak ñeneen ñi nekkoon ci kër sëñ Saaliw ci sëñ Abdou Karim joxe woon leen fa addiya ñooñu doy na sëkk ci ay seere yoo xam ne ni ay liggéey la ñu fa liggéeyo ba ni muy jee boromam jëmm ji nga xam ne nag moom tey ku am tiyaaba tey ci bisu tey bii nii ginnaaw yàlla jëmmam ju tedd jala muy sëñ Muudu nga xam ne tey moo woote bis bii nii te wax naa la léegi ne la li gën ci jamono mooy waladun saalix la lahu yonent bi moo ko waxoon bàyyi fi njaboot gu baax joo xam ne dañu lay wutali bis yuñ lay ñaanal loolu day dara gën ko ci jamono man waxuma la tiyaaba ji mu ci def rek waaye ñun ñii nga xam ne dañuy bàyyi ko ay barab yu sori ak ñoom ñii nga xam ne ñoo organiser bis bii di jàng alxuraan ak xasida ni ko sëñ Moustapha nettalee ca cosaanu bis ba loolu moom mooy ki nga xam ne moo ko jëmmal ca yàqu dara nag ca la nga xam ne mooy moom la taxee woon ci xilaafa ga ci wàllu addi yi xam ne moom la kër gi ràññi ko ak xidma khidma ak lalu waaw ah. loolu ci dara don ko xamne nak momit la dajale woon ak haqiq ñu bari nak ci ñun ñii xaqiqaam lañ gis waye nit ku ku fesson del ak sharia la ku fonkon julli jurom la ku dal la fum toll la ku la ku fonkon dogub alquranam la lolu mustafa bi ko du jot mukk ci gennewut man bama xamé ba tay man mom la xam ci wérdu maaxuus sax ci mom la xamé Mamoudou Day Makhous mom mom la ko jëk xamé fess del nak nak ak sharia ñu bari nak ci ñun dañoo japp haqiqa ji lañ gis ci kaw waye nit ku fesson del ak sharia la foko fekk day jublu penku foko fekk day yoré japp ku bari won lu muy jang alquran la jukki qasida yi lim ci da def dog bi kenn xamul nu tollu ku fonkon julli la ku fonkon werdu Makhous la ba nim fi nimuy jé boromam lolu lolu la doon dund lolu nak ndaw yi ak mag ñi koy gis yépp dañoo jappone dal haqiqa ji lañ gisoon muy bëgg gi señ tuba ak daanu gi waye ku fesson del ak sharia ak xeex la mom moom ku dundut ak mom do ko mëna xam loolu señ Moustapha mi mëna ci séré lu bare bare bare bare ci dogi alquranam mëna ci séré ci dogi khassidam mëna ci séré ci lim fonki won japp mëna ci séré ci lim fonki won waxtu juróom ndax jité nakoy julli ba tay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sama kanam ak nim fonke won kuy dox ci xam-xam ak kuy dox ci du jëm ci yalla ñoñu lim doon ak ñom ci suuf ñoom ñii ko jege woon sax xamuñu ko woon léeg-léeg da ngay jékki di laaj naan lu ma fonke man baaxuma du askan du nang waaye da demaat ba ca biir gis ne daal xañ na boo demee li ngay tegu ci aw yoon di wuti xam-xam ak nangam nangam ci la la fonk loolu ñu baree bare ci ñun ñii ci kër gi ci yëngu ci xam-xam ak di yëngu ci xasida yi gisoon nañ ni nga xamee noonu la fonke woon ñu ci doon yëngu mm-hmm. kon bis bii nii moom moo ko woote niñ ci ñaanale waajurum bu tedd ko sëñ Balla Fari di ko ci ñaanal sëñ Abdou Dieng sëñ Fallou Dieng njabootu sëñ Balla gi noonu lañ ko ci waroo fàttali ko it dox ko ci njukkal ñaanal ko ci ndax baax gum baax ak nangu gu yàlla nangu liggéey bi ci la boroomam jël jël ko ci weer wii nii ba tey muy weer wii mu doon ñaanale ci weeru muharram ca boo doon tàmbalee woon ca noox yonent yàlla noox ba tey ci yonent yàlla Muhammad ba ci Seexul Xaddim gaa ñu baax ñi fi jaar ci ñëpp ci weer wi lañ koy ji seen borom suñu yaakaar tey ëllëg Seexul Xadim ci weer wi la wuy ji boromam sëñ Balla Faali Jëng mu baax ma ci weer wi la wuy ji wa boromam sëñ Muudi Jëng mi woote woon bis ci weer wi la wuy ji woon boromam hmm. loolu jëf day seere jëf ju baax ju ànd ak boo fi jugee day wane sa jëmm yow ne li nga doon def suñ borom nangu na ko hmm. loolu moom xañ na fekkiwu ko ci zaahir waaye mën na si nag koo seereel ñun ñi nga xam ne ñëw nañ ci ginnaaw hmm. ba caatum sëñ Balla Faali nga xam ne mom ñing ko séddee won Cheikh mohammed murtada Mbacke khadim rasoul ku ci séré demb ëppulé woo ma ci lo ci mëna séré man mën ko wax sëñ bi mi xamna limay wax ndax man sëñ di jëng Balla fali man momu tuddé señ murtada khadim rasoul ci liñ ma netalé nga xamné sama bay net la ko ñu bari sama net la ko señ murtada mo fa ñëw ci ngan lolu séré la sax jëm ji sax taxul may wax waye seeni jëf mo tax may wax mo fa ñëw ci ngan sëñ Mourtala toog fa nee na mu ne ko abibu mii de dafa am gan dafa dafa am am tudd sax bis sàngam maanaam tudd ma ñëwagut sëñ Mourtala dadaa joxe tur di laaj ba daa laaj nee na bi mas naa koy nettali sëñ Bassum sëñ Mourtala mu ne nii mu def sa baay de nii mu def sa ñëpp di jëng de man na ma koo def lii de jëf ji mooy li mu ko laaj mooy ndax tudd na la doom la ko laaj mu ne ko tudd na ma ñaari doom tudd na ko doom mu faatu mu waat ko doom muy Abdou mii nekk Italie mu ne ca daara mu ne ko ndax tudd na baayam mu ne ko ab taawam baayam la ko tudde mu ko kon kii nag ma ko tudde sëñ Abdou Dieng nag danaa def léeg-léeg aw weer wala at moo xam ne nii day jël doomi sëñ Tuubaa di leen ci tudde boo xoolee Murtala yi ne ci kër gi yëpp ñoo ñëpp ñoo tolloo at boo boo amee seetlu Saaliw yi yëpp ñoo tolloo at kër gu ne mën nga fa wax Saaliw yi ñooy tolloo génération yi xam naa yooyu seetlu leen koon Saaliw yi ñooy tolloo Murtala Mbóoj Murtala Silla Murtala Jëng Mbaye Murtala yi yëpp ñooy tolloo at Saaliw yi ñooy tolloo Abdou Lahad yi ñooy tolloo Fàllu yi ñooy tolloo loolu moom mu daa jékki-jékki rek def ku ñëw ne ko am na nangam mu tudde fallu yi fallu fallu fallu yi boo dee xool ñoom ñëpp ay weer la ñuy rawante wala at. sëñ ñu jox ko sëñ Mourtala xaadimu rasul sëñ Mourtala fonkoon ko lool nag bàyyi woon ko xel lool nag bàyyi gi xel rek doy na sëkk muy sëñ Mourtala jënd na kër gu seer lool ci digg njaareem moom la ko joxoon kër googu bi mu demee ba nga xam ne ñu bari sax ci Azhar dañoo jàpp ne moom moo ko moomal boppam moom sëñ Mourtala waaye ci gore gi ba mu demee ba nga xam ne xañ na mënatut sëñ Abdou Karim nekkoon fi nekk mag mu waroon a taxaw lu bari ci kër gi ci wàllu julli yeeg yu bëree bare bare tudd doom yi moom lañ ko bàyyee woon mu bàyyee di liggéey boobu tegaat ko ci loxol Azhar sëñ Saliou Mbacke moom sëñ Mourtala bàyyi ko nag loolu contrôlé tul ko jëmatu fa benn njabootam jamatu fa loolu a gore la te kër googu étage la woon buñ tabaxoon ba mu pare am lépp lu mu a am amul kenn ci kër gi koo ko xam ku dul ko fa a jaar jàngi mu liggéey mu nekk fa doon liggéeyal sëriñ Touba ci wàllu xam-xam jàng fa mu war a jàng jaar fa mu war a jaar ñu yar ko mu nekk murid saadix nag di ku ni ma ni ma wax léegi ci charia ak xaqiqa noonu la koy dundee bëgg sëñ Tuubaa lool bëgg sëñ balla lool du ma wax ne mbooleem xalifa yi sëñ balla yi ñoom ñëpp ñu gërëm ko sëñ Abdou Dieng gërëm ko sëñ Abdou Karim gërëm ko sëñ Muudu mii mu bokkaloon jamono yi mu gërëm ko defu ko woon mag waaye ab sëriñ la ko defoon nekk ci ginnaawam sëñ Muudu it jox ko cër boo xam ne nii jox ko woon benn cër daanaka kenn ci kër gi ndax lépp lu jëm ci wàllu charia moom la ko bàyyee woon ni nga xamee ne kër Sëñ Tuubaa lu jëmoon ci wàllu charia noonu lañ ko bàyyee woon Cheikh Murtada Mbàkke Xaadimu Rasuul taxaw loolu taxaw bu rafet ba tey nii mu jëlee liggéey bi gàdd ko dara ñaawu ci nag ñu di ko ñaanal nag foofu magam yooyu jaaroon luñ injaas woon ak luñ xidma woon ak luñ joxe woon ci ay hadaaya boo xam ne nii moo ràññeekoon ci kër gi suñ borom taw féexal ko ba mu def xidma yooyu romb ko hadaaya yooyu mu romb ko waaye it ñu ngi siyaare it njabootu sëñ ba euh, surtout sëñ Balla Fall yi yëpp nag tàmbalee ko ci sëñ Basiiru mu sëñ Muudu sëñ Saaliwum sëñ Muudu sëñ Moustapha Basiiru mu sëñ Muudu sëñ Cheikh Balla nga xam ne sëñ Balla lañ ko tudde mu sëñ Fallu ak mboolem seeni rakk ñu ngi leen siyaare ci bis bii nii ñu ngi jéggulu na ci guddal gi waaw eh, sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah jooy Cheikh Ibra Fall masat jooy Cheikh Balla Faali na jooy Cheikh Ibra Fall ku jooy Cheikh Bamba na jooy Cheikh Ibra Fall no sot xalimaam te jooy Cheikh Balla Faali keroog asamaaw jooy na ko araadi te jant ak weer jooy nan Cheikh Balla Faali xarat yow ma saani min asar li xidmatil muxtaari fi saari sawar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 وصلى الله وسلم على الهادي الامين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثر الى يوم الدين. مبكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوغي لين دي نوي بو باخا باخ دي لين سياري دي لين بال وقت دي لين بال دي ام بيكتي لول تي برب بو تيد بو ماغ بي ني تيو اك جوتاي بو ماغ بي دي سياري كليفه ييغا خا نيوم لاني بوكال جوتاي بي di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Balla Fally suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ak njabootam gi yëpp doom yeeg taalibe yi ñëpp ba naal yi nga xam ne yéene ne ko ci liggéeyu waajuram bi mu eggale ko fu kawe njort lépp nu ànd koog moom ko defee kon noo ngi rafetlu bu baax jotaay bi kàddu yi nga xam ne jib na fi it di kàddu yu am solo yoo xam ne lépp ci xam-xam la tegu lu dëggu la ñu di ko rafetlu lool ñaan gi nga xam ne moom la ci sëriñ bi taxawe woon te daan ko ci def dañ koy wéyal ba léegi ñu yàgg ko wéyal te lépp lu ci euh, njariñ ak xéewal suñ borom jotale leen ci yool bi te may nañu yàgg koo teewe lool bis bi nag moom ak jotaay bi ak ñi ñuy wax daanaka liñ naan jekk-jekkal daam bëtikum yàqoon te gars yi li ñuy wax rafet na ba noppi moo jiimee jekk-jekkal far yàq ko dara du ko jar kon lu xas rafet ba noppi moom danga koy bàyyi noonu rek ñu xam ne lépp rafet na lépp wiir na màggal gi it niñ ko xamee rek sëriñ Mouhamad mi nga xam ne moo koy taxawal moom suñ borom defoon mu yàgg koo taxawal ndax ñun ñi nga xam ne suñu borom def lañ juddoo suñuy at lum néew néew fi ne léegi ñu jege ñeent at dañoo xam ko ci bis bi bisub sëñ Muudu bi moom bañ xàmmee lañ xamoon màggalu sëñ Muudu moom nga xam ne fii moom ci liñ njëkk xam ci la bokk kon loola lu yàgg yàgg la lool te mosu cee teggi tànkam fa mu ci tegoon doon loo xam ne nii fonk gi mu ko fonk ak eh, ni mu ko jàppee léppam la ciy waaye du ko su woyefal addu gën a gi nag ak xam fam jëm lam fay fekk taxoon na bis bi jëralu ko soppi ko ci lenn nag nam daan solo bi bis bi ñëwut boo ñëwee aw solo yi sax du ko soppi amut it bang bu muy toog wala dara loolu ci suuf bu demee ba waxtu ñaan jot fee nga koy romb mën ngaa jàpp mën ngaa romb sax ci mbooloo mi ñu toog loo xam ne sëñ baa ngi ci biir ndax amul nen nu mu koy waajalee noo xam ne da jàpp ne kii am na lu tax mu kii te loolu lépp wayefal adduna goo xam ne moom nekkoon na ci moom ñoom njaboot gi ñëpp it ni ko Cheikh Mountakha waxee ñëpp noonu nga mën a seeree ci ñoom kenn ku nekk suñ borom dimbalee na leen loolu moom ab cër la boo xam ne suñu borom daa bokk ci yi mi leen jagleel moom ñu def mooy wayefal àdduna lool sopp waaw kay mi ngi noonu rek lu defaru moom lu defar rek lu lu jag rek la mën a def kon defaru gi nga xam ne moom la sëñ Sëriñ Tuubaa defaloon sëñ Balla te defal ko mboolem ñi ko wëroon waaye nag tawfiix moom day am ndax it waaju baax lu mu tudd ci làmmiñam ak lu mu tudd duñu duñu yem kon sëñ bi ñëpp la defar ñu baree bari waaye nag tawféexi tudd gi moom ni ko sëriñ Saliou radiyallahu anhu daan waxee tawféexi tudd gi moom sëñ Balla ko am te tawféexi tudd googi lu rëy rëy la loo xam ne du lu ndaw ndax ñëpp la ko def waaye nag sëñ bi loo xam ne da koo tudd ci làmmiñu boppam ak lu mu tudd yémuñu kon tudd gi mu ko tudd am na leneen lu mu ci gën a defaat loolee nag tax na am na ciir boo xam ne moom suñ borom rek ko ko jox keneen joxu ko ko bu dee ci màggal gi niñ ko waxee donte ne waxtu wax yu bari na ci waaye am na wax joo xam moom kenn lu ci werante jàpp naa ne ndax mën naa am léeg-léeg dégg ko naan nangam la ko sëñ bi njëkk a defloo waaye ndigal li nga xam ne bi sëñ bi joxe ne moom na ma ci ñëpp jàppale kooku moom sëñ Balla la ko wax loo moom waxal ma fere yi ne na ma ci ñëpp jàppale moom amul kenn koy wax ne sama maam la ko waxoon moom loola moom kenn ku ne xam ne amul luñ ciy xëccoo te loola it lu rëy la ndax loo xam sëñ bi dem na ba kii boppam cant boppam lu ko ci diggam ak boroomam ndax suñ boroom it cant ga war ci moom moom moom rek moo ko mën a defal boppam doomu aadama mag li man mooy def ngir sant waaye comme ni ko yonent bi salaam waxoon ne ko suñu borom kat du ma jéem a takk aw cant cant tagg wala cant gi nga xam ne moo war ci yow du ma ko man cant ak tagg wi war ci yow yow rek yaa ko man allahumma la ahsi sanaan alayka kama kama asnayta ala nafsik nga xam ne cant ga nga xam wa nga xam ne moo yell ci yow dëgg-dëgg yaa ko mën a defal sa bopp kon jaam moom li mu a def mooy ginnaaw suñ borom a digle sant leen ngay jéem a sant waaye cant gay war ci suñ borom dëgg-dëgg suñ borom rek ko mënal boppam moo tax nag sëriñ bi kon bi sant bi defee loolu it defal ci boppam di ko defal boppam ba mu mu xam ne nag ginnaaw suñu borom kenn mënu sant sax waaye loolee nag ba muy woo mbooloo mi ñëpp ñu jàppale ko ci moom sëñ Balla am tawfiix mu ñëw ne ko waxal ma mbooloo mi ne nañ ma cey santle kon loola tawfiix jooju mu am mu waxal ko ne ko waxal ma leen ko it loola ba tey ab cër la kon yooyu yëpp boo ko dajalee buñ toogoon di ko limite mën nañ ciy wax yu bëree bëri yoo xam ne yëpp noonu lay demee waaye lu lu lu lu lu lu lu doy daal day doy te loo ciy dolli it mën na indi leneen bu ko defee kon noonu ñu ko xamee rek ci màggal gi liñ ci wax ak ci sëriñ bi ni ko taxawee woon ak kilif njabootam gi niñ ko taxawee ñëpp rek lépp moom lu ñëpp xamandoo la Cheikh Abdul Karim radiyallahu anhu da daan wax ne duma am sama bisu bopp ba noppi bàyyi ko fa di jàppale kenn ci bés sam bisam te nee na màggal mooy sama bis nee na sama yoon nii ko ci leneen du ma am sama bis ba noppi nag bàyyi ko fa di dem di jàppale keneen ci bisam moo taxoon màggal moom yëmaliwu ko woon ak lenn noonu la jàppale te it nag li ko waral mooy rek niñ ko tudde léegi ginnaaw moom dañ koo jëloon jël jëmm ji jox joxe ko ngir muy gàttu màggal kooku moom màggal dong la mën a def mënta def leneen loolu noonu noonu it la la ko sàmmee doonoon ab moom sëriñ bi moom yëmaliwu ko moom manees na ne comme niñ ko waxee ci ci kilifaam yi ci loo xam ne lu wér lay doon luñ mën a firndeel mm-hmm. mooy nitu sariya la woon waaye nitu xaqiiqa la woon mm. kenn ku ne xamoon na wàlluk jaamu yàlla ak ñi ki niñ ci ni mu ci demee waaye manees na ne sëriñ Abdou Karim bu dee ci sariya sëriñ Mbàkke Buso la waaye bu dee ci xaqiiqa maam Cheikh Ibrahima Fall la ah. te noonu la bëggee woon maam Cheikh na nga xam ne moom da daan wax sax léeg-léeg mu ne Cheikh Ibrahima Fall rek am fu oh. waaye téegul ba jaamu yàlla ak la aju moom mm-hmm. daa fonk gëm fonkoon loolu tax na lu ci ëpp waa mbusoo la ko daan def loo mm-hmm. te am Fatou Bousso la koy defloo ngir ngir loola day gën a dëggal Mbàkke Bousso gi mu nekkoon kon loola lu dëggu di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mourtada mi suñu borom yàggal ko fi waaye moom itam murid saadix wax ci moom murid saadix la koo xam ne boo boo ko xamoon ak ak njàng mi ak fi mu wër da ngay jàpp ne kii moom daanaka yii ñuy def nii du ko saf waaye suñu la ak murit rek ko saf murit saadix la te li ma koy dëggale mooy lépp magam yii loo mas a wax ne ko moo ko wax amul lu mu cey bis damaa ñëw nuyu ko nii ne ko mun nuyu ma a ah Abdou Say ah, la de ma ne ma ah Latif tàmbali ah, de yema ko ma ne ma kon dëgg la moom kay ca la ca la yem ba léegi it Abdou rek la may wax ba ma ko nee sëñ rek la ca noppi moom ne ma kon noonu la mu amatul lu mu teg boobu ba du ca du ca waxat leneen loolu nag day tegtali ak murit sarix goo xam ne amul leneen lu mu ciy ñoom noonu la leen tege kon daal ñoo ngi jéggalu bu baax a baax kàddu dañ ko mëntoon a ñàkk a yëkkati di ñaan suñu borom mu fekke loonu bis bi ay at yu bare bare bare te lepp luñ ci ñaan suñu borom defal nuko def ko seen tiire jëf ya te yagal ñu seen suñu sunu ginaaw seen ginaaw lool kon loolu moy kaddu yi nga xam bëggoon nañ ko ci jékkati rek ci ginaaw bi nga xam ndigal dab nañu ci waaye mom ñoo ngi sant bu baax di gëreum dal di ñaanal jabor gi suñu borom yagal leen ba liñ bëgg yeggal seen liggéey seen wajur yi ñu yeggale ko kawe njortu ñu ànd ko ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ sëñ sëñ jëng tiwi ne ko sëñ Dieng sa Dieng Saala TV ñu di ko ñaanal lool di ko sant ndax moom itam nag ku safoo kër gi la ku ko bëgg la maa ngi koy faral di tooñ nag waaye li mu doon wax ne man lu ma am TV laa kër gi laa koy moo ne Dieng Saala laa koy tudde ndax nee ba ma amee sama cosmétique jeng sala tv la jeng sala la ko tudde bima amé sama sama jeng ki ki jeng sala tv la ko tudde luma am néna ci jengi la ndax mom rek la am to mom la fonk koku yi ñing ko ñaan suñu borom defal ko tawfiq defal ko ndam ba fimu bëgg ag ci yégué bi mu yag fi fu kawé ndjortam bark señ saliw assalamu alaykum xamna ñi ngi jéggulu wat kaddu yi ndax wax dëgg yalla kaddu yi rafet na lool dal tayit ah, xam xam genn na ci baaxa baaxa baax ak histoire di ñaanal ñepp rek jotaay bi na wax deug yalla magi keur gi rek a fi tew ndax seigne Murtala Silla habibullah Sall ma sëñ Fallou Diongam Baye mut jobbe ak Baye Abdou Karim Mbodj mom Baye Alaaji Mbodj ak Abdou Latif ak Cheikh Abdou gay ak Baye sal jeng jannatu jankat mom Baye bi bu jeng day mel ni kon mbooloom kër gépp tew nan xamna may may wa tuuti ci magal gi rek ci di firndel li magni gaay yi doon wax rek dama déglu ci waxtaanu suñu Ibrahima Fall Maajoor dama déglu dama dégg ci waxtaanu suñu Ibrahima Fall Maajoor mu ni bi nga xamee ni sëriñ bi def na ko ci atom mu jëkk moom cant gi atom ñaareel mi dafa wóolu suñ Balla Fall mu ñëw mu jël ab xaalis jox ko ko ba mu ko ko joxee ne ko demal wutali ma am xar wax ko ni mbëgg mu mel ni bako seigne balla wuté ba ñew serigne bi ne ko défar ko bi mu ko défaré ba nopi serigne bi wax ko nim koy sédalé kon lolu kon lolu da ngay daldi xamni histoire la lolu la dégg ci ibrahima fall major mo wax ni at mi ko serigne bi ñëkke def mako ma ca top dafa wolu serigne balla fall jeng mu ñew mu jël ab xaaliss jox ko ko ñuko demal wutali ma am xar wax ko xar mi ni mi mel ba ma ko wutee ba ñu mënu ko defar ko su ko defaree ba nopp mu ne ko defal ma ko nangam ak nangam. nangam ak nangam. bi ko sëñ Balla defee ba ne ko def na ndigal li ca déwén sa sëñ Balla ci njëkk a joxem xar. moo ci njëkk a joxem xar. at mi ko sëriñ bi njëkkee def atum ñaareel ma la jël ab xaalisam jox ko suñ Balla fa la ni ko demal wutali ma am xar. atum ñetteel ma nag la sëñ Balla li jël gàttu boppam jox ko sëñ Tuubaa addiya waaw beneen ba ca topp mooy beneen ba topp mooy sëñ gàtt boobu suñ Balla joxe woon soxna joxu jóob soxna joxu jóob sëñ Balla Fally dencoon na doomam ju jigéen moo joxe woon gàtt ba sëñ Balla yar ko ba mu toll noonu ci at yaa ngi dégg léegi beneen bi ci toppaat mooy déggaat naa ji suñ mudu mu wax ni ndax fi ne boo xoolee boo fekkee jàng histoire um njaareem suñ ibnu amar ak suñ Cheikh Fall xattaaba ak suñ Mbàkke jaxate ñoom ñi ku ci ne am na bunt bu la sëriñ bi joxoon boo xam ne ceebe ji yaa koy tijji yaa koy tijji kenn du la ci fekk mattum jalambaan moomu tamit ñoom ñoo ko daan xam noor ak nawet dawul fay guddi bëccëg bunt boobu tamit ñom ñuko yoron ci jamono joju jooju dencu gu ci won soxna ay ay ay waxambaane la moom señ mudja señ señ safal khataw mom nak njël gogo da fekk bobu mu doon xam ndax wax na ni señ bi guddi gi ñetti ciir la ko daan def moy ñi xam ñetti ciir lañ koy def bu koy xambe ba ba wessu 11 ci guddi day noppalu kanen ki ñew bu deme ba ay ay ay ay quatre heures wala ay ay ci guddi ay deux ay quatre heures trois heures ci guddi mu bàyyi keneen ki àggale booba nag daa fekkoon suñ safal xataa bu war a xam bu taal waaye dama dégg ci waxtaanu suñ safal takk jub mu wax ne ñoom ñett ñi ay waxambaane yu góor lañ yoo xam ne jamono jooja bokkoon nañ ci ñu yor ay bunt te xambum taal bi ñoo ko féete woo woon donte am na ñeneen ñu ci bokk waaye ñoom ràññu ko woon nañ ci léegi nag suñ safal xataa bu moomu ci mujjam Euh, waxoon na ko suñ Modou mi nga xam ne moo waral bis bi tey. ne ko màggalu Tuubaa coow li bari na ci lool waaye gis nañ bu jëng Balla Fall fi ne moo ma gën a lu ma mën a am ba leeral leen yéen ni ngeen demee ci màggal gi. xamal ko ne ko kër bi sëriñ bi fëggee permis man mii maa wuyu mu ne ma kooku ma ne ko man la Cheikh Fall mu ne ko Cheikh Fall man mu ne ko Cheikh Fall xataa mu ne ko demal wol ma sa baay Balla nee bi sëñ Balla ñëwee. sëriñ bi leeral ko ko ni ko boo xëyee nag na ko fere yëpp dégg bi sëñ mut jow paxa jógee dégg bi mu xëyee ba dégg ndigal li moom digg jubalut ci sëriñ ba de dafa ñëw ci sëñ Balla ni ko man yaa may joxal sa bopp ndigal sëñ Balla ni ko ndigal li sëriñ bi daa wax ma sénéraale ko mu ne ko lépp digg naa ko waaye man yaa may joxal sa bopp ndigal na usnul xaas bi yaa ko ci am ah, daal di toog sëñ Balla leeral ko ko suñ mu joo paxa dem fas yéene jëfi ndigal loolu loolu lépp day firnde rek suñ mu laay busa ñu ngi ko ciy tudd waaye magam magam gi ñuy wax suñ muudu buso moo ko yónni aw béy ci sëriñ bi mu ñëw mu ñëw jox ko sëriñ bi addiya bi mu ko ko joxee ba 18 safar bi ñëw sëriñ bi ni ko demal weccukul ma ko am xar fekk ba yu bari woon soow la bi mu demee ci mbodaay googu séeréer yi mbodaay yi dañ ne ko kilo la koy weccil kuloo bëy da ko xamul waaye bu ko xamoon bëy wu mën a giir la ba noppi te day bari am soow xanaa kilo la koy weccul xamu ko mu ne ko xam na ko de waaye moom am xar la ma wax ko wecc kuloo ba noppi nag mu jox ko sëriñ bi loola mbirum sëriñ bi la ak sëñ mu lay buso ñoom ñaar ñoo ko jagoo waaye loolu nag jotewut ak dara ak ndigal lii lee moom diggante sëriñ bi la ak sëñ malaay waaye lii nag diggante suñ Balla Fall la ak sëñ Touba muy usnul xaas bi nga xamante ni sëriñ bi da ko wax sëñ Balla ni ko jotalal ma ko fere yëpp. na yeneen histoire yu bari yu ci xew nga xamee ne keroog sëriñ bi woo na sëñ te wooloo ko sëñ Cheikh Fall Xataaba bi bi sëñ Balla ñëwee daf sëriñ bi daf ko wax ni ko boo xëyee neel fere yi. lu waay togg lu waay mën a am tam mën a dem ci cin na ko togg andi ko ci penc mi bi suñ bi nu wax bi nu waxee loolu bi ko suñ bi ko suñ Issa Diène bi ko Seex Ibra déggee wax ne ndax luy dem ci saxaar am na ci sëriñ bi ni ko déedéet lu ñu togg ci cin rek laa wax. bi nga xamee ni suñ Issa Diène mooy njëkk a noppi ci cin ya ca ndab ya dafa wax suñ Mayla Njaay ne ko tëggal ndënd mi xamal taalibe yi ni leen ku soxla na ñëw lekk bi mu tëggee ñaari yoon sëriñ bi dégg ko daal ne ana kooku lu muy wax ñu wax ko ku mu ni waxuma loolu ku lu waaye togg na ko indi ci penc mi laa wax. bi nga xamé ni manam togg nañ dab yépp eh, dab penc mi del la ki dab sëriñ bi genn ni teul ñu ubbi ndab yépp mu xol ko dal koy wër li ne ak sa ni la ko bëgg dafa melni bis bi nim mu toll ci man xamu leen ko mo waral ma jëfé ak yeen ni waaw dal ne nag li bu ñëwatee nak lu ci way man nang ko ci def waaw kon non la histoire magal gi demé bi nga xamé ni sëñ Muudu mi ñëw na fi ba ji juk sëñ Abdu Jëng Balla fa li nga ne talibé yu bari bu señ bi laajee dañuy jël xaaliss di joxe sëñ muur mi jël ak deram tak ko wax ni buntu kër buma dem bala ma faa joggé am xar dana ma fa top même bu ko joxé xaaliss du ko nango jël xar rek lay wax mo ci laxasaay war nak di def tund ndogal wi bu xeyé ñaari fan la ñatt fan yi mi am lek sax dawu ko def ndax bo waxé mu ni ki ñuy lek lo wul amul genn kër go xamni señ mourou muru laaji gatt nga dem may ko fam ndox wala ak lek nga gis ko mu di ko lekk xalaatu ko feeg bi mi def du mos aw ñam ndax pas pass bi te bu koy def bo xasse ba ju genn deur gi ba ni ci wat ak deram lay tak lolu mom moko dogalon bopam waye da ci amat ndigalu suñu bi jëng bàlla mu joxat ko ci ndigal mu ne ko nak buma soñon dag may jox ndigal lo xamni damay wara talibe yi ma taxaw ba sa buntu keur ma force la nga genn gatt bi ndax li farata la ci ñun mom non la ko tollon waaw taxna momin musta tabaski sëñ Modou kenn mësu ko gis mu rey xarum tabaski amut ci àdduna jamono yi nit ñiy jóge ci seenub jullikaay moom lay séddaleem xaram ñuy lekk moom noonu la ko daan defee màggal gi tamit li nga xam ne mooy sekkare màggal gi digg digg digg muy yoor yoor mom ci la daan joxe ay ay ay añu màggalam. waaw 11h 10h 11h midi. boo mësaa ñew bu fekke njëkkee nga ci ay añam bu la neexee man nga ñib kon mom day melni am na lu ko borom dink ci sirru magal gi mu xam ko. kon ah pas-pas positif bobu rek positif bobu rek la la la lan bëggoon a seerewaat ci mom mm. ah, di di di di ko ñaanal bis bi nga xamanteni daan ci wa ñaanal way juróom ak kilifaam ñep ñu yàgg ko teewe te suñ borom yàgg na ko fekkeloo te njaboot gi tamit yàlla may leen kàttan te kàttanal sët sépp kàttanal tamit magi bi yëpp kàttanal tamit mbooleem koo xam ne sa waajur doon na liggéeyal sëñ Balla wala sa maam doon liggéeyal sëñ Balla ñu ngi ñaan ñun ñëpp ndigal li Ah, suñ borom may nu kàttan ban mën koo jëfee ni ko bëgg jàpp na ku ci sa soxna amoon doom tey balaa bis bi del si da nga wut xar mum xarum tudd xarum tudd na xarum màgg a ko gën ci ñun ndax li ñu ci suñ tubaay di digal ci ngërëm wala su mënuñu ko am ci sunu njaboot kon nag gaa bu nax suñ bopp nan bàyyi naxante bi te waxante dëgg kër sëñ Balla Faali nan miraasu ci màggal te xamni ndigal li buñ ko jëfewul ba légui dana nam gatch ndax seigne Balla ak njabotam gi biñ fi ne mata matale ko ba bayyi ñu ci ay loxo yu leer talib bu ni seigne Balla la yaakar nak te magalu la lebe am xar ngir jox ko seigne Tuubaa addi war nga seetaat sa bop waaw ñi ngi jéggulu ñëpp di rafetlu jotaay bi di teunk fofu kàddu yi yeneen jëmi jamono wa salaamun ala man huda mbokk yi yéen a ngi seetaan ci biir mi ak ci bitim réew noo ngi nii nag abone leen bokk leen aimé leen partagé leen jaa ngeen jëf. avec Saala TV bu leen fàtte laal ko si notification loolu mooy tax vidéo bu dugal rek ngeen man cee jot.